nuyoo bi ñu ngi ciy jiital le président Ibrahima Sall bi jiite parti Wurel di membre ci Benno Bokk Yaakaar mooy la mouvance présidentielle fii nga ñëw tey muy Mbacké ak Touba sa kër maam la ñu ngi nuyu bu baax sa représentant bii fi teew muy sëñ Aliou Diouf nit ku dynamique la nit ku nangoo sonn la nitu defi la wante fii de xam nañu ne bu fi courant bi du gisee ndox dugg si fi ñu rotise marché bi tabax fi fajukaay tàmbali yoon wi jëm Daaru Rahman loolu de maire bi bu ko mënee parce que président de la république muy jàppale ci courant bi ba fii may wax ak yow bi meeting bi jàllee rek biñ toogee ci kaw tribune bi rek njiitu réew mi bi ma tuddee juróomi kilomètre ci Mbàkke dane bi ma toogee dend moom dana dañ yokk ba quinze kilomètres quinze kilomètres yooyu nag waxtu wi tembe soo demee quartier Baye euh, Baye Sawru Diop daanaka suul nañ lu mat deux kilomètres cinq cent kon ci biir sanc yi incha allah balaa balaa bot yi danañ fi dugal lu mat six kilomètres ndox programme la woon ba woon président moo ko accéléré pour que ñu def ko nu gën a gaawee courant baa ngi nii fépp leer na vingt quatre kilomètres lañ dugal ci côté Mbàkke bi dugal presque dix neuf kilomètres ci côté Touba bi boo ko boolee muy quarante 3 kilomètres ak poste yi ñu ko booleel te réew mi pare na pour defar Mbacké ba Daaru Rahman maa ngi leen di ñaan ne leen ay doomu aadama fekkee da ngeen am soxla te lu ëpp ñaar fukki at ak nangam soxla sas ngeen koy joytu sottiwut ñu xëy diir bu gàtt ci diir ñaari at ak genn wàll liñ doon jooy ñaar fukki at ak juróom ñu dafa leen la ca des xam ngeen ko mooy nit bu la jiyee teraanga da nga koy fay teraanga président de la république rek moo xewle bi mu xewlee moo tax ñun ñëpp kenn ku ci nekk sa bëgg-bëgg nga denc ko pour moom mu am ndam ndam loolu nag dynamique bi ñu liggéey ci Mbacké ak ci Touba ak ci piir département bi bu ñu suñu borom dimbalee danañ ko dellowaat Mbàkke Touba ak département bi ci loxoom te it ñu ñaan au soir du 24 février 2019 victoire bi président di am département de Mbàkke ci wasalaam di leen wax ne tey bu ñëwee fii di euh, inaugurer siège modèle dafa nekk histoire parce que léegi englement bi nga naa xona benn bokk yaakaar waaye na xam ne modèle mooy ndey Benno Bokk Yaakaar ndax man maay premier partenaire président la république ça fait dix ans ñuy ànd modèle moo joxoon APR récépissé ci Dekkal Ngor pour mu dem élection modèle mooy premier membre fondateur Macky kon modèle mooy ndawi Benno Bokk Yaakaar bi ma leeralee loolu ba pare ma leen yëg ne Serigne Aliou Diouf lu tax ma am ci moom confiance mooy taxaw bu muy taxaw askan wi ndax li nga xam ne ñun bëgg nañ ko régime bi bëgg na ko président de la république bëgg na ko ca ñun mu nekk ci suñu programme depuis yoonu yokkute ndax bu leen fàtte ne 2012 man maa doon président pôle programme présidentiel bi bind yoonu yokkute muy Sénégal émergent loolu président de la république daf ko bëgg a continuer moo tax muy ñaan deuxième mandat ñu gëm ne nag askan wi xam nañ fu seen njariñ nekk seen njëriñ mooy régime bii fi nekk di leen taxaw di leen jàppale nga xam ne Sénégal la ko ñor ñu bàyyi ko mu liggéey ngir àggale yéeneen ci réew mi kon dama leen di ñaax di leen wax ne li ci ëpp solo mooy ngeen ànd ak yar ak tey bu leen nangu provocation parce que élection du dara day jeex dans une semaine ñëpp dellu seen liggéey bu ko defee bu ngeen di voté ji ngeen votel président Macky Sall dellu seen liggéey bu ñu tàmbalee liggéey bi lépp loo xam ne président engagé na ko dana ko def incha allah ci sancaan yi kon maa ngi leen di ñaan ngeen taxaw ci ginnaaw Aliou Diouf liggéey moom ci modèle ngir benn boo yaakaar man am ndam ci biir Mbàkke